xam nga ma teg kaaral mais tey dama am envie live je sais pas dama amul dama yàqamti woon ñëw allô allô allô oui my bestie. oui ma chérie ça va. ça va bien. alhamdulilah. my bestie daal maa lay nettali benn affaire boo xam. lu xew. ma bestie sànq ci suba. waaw. damaa doon sëy ak Moussa sëy bu neex woo xam eh, wàcc. kon Usu xaaral ma chérie xaaral Usu sama xarit nuyu naa la kon gis nga ne bu ma naturel damay gën a neex ndekete damay gën a tooy gën a génn fu neex <laughs> damaa laalanteeg moo tax may pëtti pëtti nii. dafa neex ma chérie continue ñëwal tu m'intéresses lu xew. dafa liggéey guddi ba wàcc. waaw. mu bàyyi ko ba mu sangu ba pare. waaw. ba tëdd. Mm-hmm. moom daal lu mu tëddee noonu rek man tam ma jug julli fajar ba pare. waaw. fekk ko fu mu tëdd. waaw. mooy sa produit yu nga doon publicité keroog. wuy yaay wuy wuy ban nga cee ban nga ban nga utiliser noonu. produit yëpp wuyu. produit yëpp wuyu mais miel bi laa utiliser. Ayaya, jël nga bu neex. Waa. Ma veste ma fekk ko fu Eh. man daal si catu baaraam bi laa commencé di ko mar di ko mar rek mu ubbati ko xam nga doomu raam la. ubbati ko may ma may ma taal ma lu bi mel ni néew bu ñu ñun ñoo bon si suñu jëkkër yi waa. may afei buli ñaari buli ñaari limon wa waa rek mu yuuxu bu yaay fekk gëfoon na nelaw waa rek après ma sax affaire bi fekk long miel bi ma koy jëm oh la la mu oh la la yow ma koy jëm di ko jëm foo yënga tey lu ma kontaan xam nga nan la def bi mu yeewuwee waaw wallaahi hansim dafa dem jëndi iPhone 15 la ma indil eh? nekk iPhone iPhone laa yore woon faa bella déedéet kay iPhone 12 bi dafa feesoon temps yëpp may wax dafa fees faalu moom mais dafa jug dem jëndi di iPhone 15 ñëw andil ma baax na bam mu sotti très bien yàlla xam na loolu boo bëggee ma envoyé la vidéo bi man daal damaa mu daal ma iPhone 12 iPhone 15. envoyé ko ma ñaanal la ci nii xam nga ñii dañu dañ dañ ñuy jàpp bu ñu waxee xam nga man keroog ordinateur laa fi génnee ñëpp naan ma damay duul te xamuñu ne miel mante boobu rek nga maccal ko monsieur boo ci boolee lubrifiant bi paccal ko ci muy grisé sa gémmañ wi sama ndey. si ah, boo ko essayé. bu ñu waxee danga naan damay fen c'est vrai que damay publicité mais bu fekkoon neexul woon du ma ko publicité nii dinaa ko publicité parce que dañ maa fay mais du ma ko doon defee nii yépp parce que man bëgguma nit ñi def ko ba pare pour jënduloo nit ñi rek après nit ñi di ñëw naan kii dafa mën fen xam nga da ngay perdre sa crédibilité daal te man loolu publicité jaraluma ko xaalis jaraluma ko ay ca miel mentholé bii de boo ko ay boo boo ko jëlee de eh waaw moom maa la wax lu mel ni yaa ko fa am kay eh bii moom dëgg la moom wuyul wuyul iPhone wuyul iPhone ah <laughs> miel mantole boobu ak lubrifiant bi nee la ay <laughs> man dama ko def laa lay wax nii dafa mel ni dafa am luñ ci def xaw ma noob lañ ci def man je sais xaw ma daal luñ ci def mais yow gis naa ko. boo ko defee foog ñu may la dara. Miss One Life merci daal sangu ba pare moom daal mu julli tàkkusaan génn ñoo indil ma iPhone bi. <laughs> baax na <laughs> nee naa bi dafa am lu lu ci nekk c'est pas naturel normalul parce que boo ko defee foo foog foog monsieur monsieur naw foog ñu may la cadeau foog dara ñëw foog dara ñëw xoolal ma lii rek kii dañ ko may. man ordinateur dernière génération lañ ma wàcceel. monsieur yàgg naa ko ko wax mu may jox nopp dégguma la waaye keroog daa xëy rek dem jënd ji ko man ak moom nii ma dem choisir tànk ak tànk kii ñu may ko kii yow looy xaar pour dem jënd ji ko looy xaar pour essayer ko pour jommal monsieur ah waa baax na bu ko def ba sa wujju def ko wala sa ko sa gelu jëkkër def ko boobaa di nga bëgg a récupérer sa jëkkër mu tëla parce que kooku bu la ko njëkkee def nga di waaw loolu neex na ma yow sama élève nga kontaan naa ci yow kontaan naa ci jënd bi nga jënd noonu liggéey boobu mais bu ko wàcc de bu jeexaatee rek de temps en temps rek nga ñamal ko monsieur bu yow bul wax dara yow man ma am tey iPhone eh. kay mën na <laughs> eh, waaye du chaque jour après day sàppi dee ko def de temps en temps rek. waaw kay waaw yow wuyu nga sama waa tim nga wàccal descend descend. <laughs> non so waa tim dañoo wuyu yéen a wuyu kay. dégg nga ñun dañoo wuyu je sais pas allo.

na plaisir. nan la ñuy joxee góor neex neex. waaw. sa borom kër sa borom kër daa amul neex neex. non lan moo tax dala kaa wax. waaw. man la eh, ku def eh Mrs Ndiaye merci Khadija wow Khadija waaw. Khadija jëlal sa train duma ci yéeg ndax damay live te tey damaa war a wàccee live bi Khadija ay ya yaa Khadija lii lan la ndànk rek Khadija benn bennel ko live bi jeexagul ndax dangay tax ma yàq live bi ndànk rek dee ko dee ko ca baxal ndànk ndànk yow moom sama Khadija dama dama la bëgg ba doon góor dama lay noba ah. oh my god ma chérie sa jëkkër lan la la wax exactement Quand est lolo. à demain Fall à demain eh à demain à ma chérie ana momo. allo allo eh, Rose n'est Wa ma chérie ça va comment vas-tu ça va et toi waaw waaye bés te nag yow tam trois cent personnes nga leen ñu ràpp tëj. ah bon. oui mais trois cent personnes fallait attendre mais mille personnes ñun waa Géttu Mbaye mais bés c'est quoi ton problème. léegi dama leen di grève yéen bu yàggee ngeen foog ne semaine yi est-ce que duma ko def live boo xam ne damay tëj commentaire yi rek gënu. kon damay xaru barke Serigne Touba damay xaru. waaw ma ne abonnement yi ma ah, kaa ngeen mën koo jëndee wéef. billaay bu munoon ne xam nga ne ñëpp abonné nag ñu bëri dañ may envoyé naan ma wave mu billaay wave munu ko TikTok bu ko dugaloon wave mu gën a neex kon ñëpp abonné nañ mais carte bancaire rek. alhamdulilah carte bancaire carte amuñu carte bancaire bés te ubbi commentaire yi cinq minutes. dama ko tijjee wàccal descend tey moom dama wax ak waa génn bay <laughs> nee na code promo bi lan la Fatou code promo bi my bestie la tout en majuscule my bestie 1 lépp collé my bestie 1 lépp collé mooy code promo bi tey andi naa leen ay produits yu doy waar dinaa leen ci wax dara waaye hee yii produit tamit wu yaay produit yi vibre ay ñoom vibro yooyu nooy wu yaay yooyu ay dinaa leen ko wax bàyyi leen ba nit ñi gën a bëri ñu débat allo damaa am lu ma naqari. ci lan loolu. maa ngi gis toog ba war a seetaan sa live. waaw toog ba war a seetaan ah. nag sama yaay moom la ma ñëwoon di dem xew. ñu ñoom ñu dem. demal xew ñun dañuy live wàccal <laughs> du du nii de my bestie avec IE. Merci, euh, ceci, merci beaucoup. Tak ceci, menemi. <laughs> euh, Kourish, Kourish, du, du nide. Kourish, ce, ce commentaire, de supprimer ko, bala de Dieu. My bestie avec IE à la fin. 1. My bestie 1. J'espère que tu vidéo bilo la def. My bestie 1. Voilà, avec e. IE. Oui, ma chérie, ça va? ça va alhamdulilah. miel bi de naa ko essayer. waaw. c'est tout miel bi de dinaa essayer kon yéen essayer gu leen miel bi ba miel bi ba ma ko publier naa <laughs> yéen ngi tardé man ma yiram jigen bo xamantene essayo miel bi ba sa jeuker dem ci gelam ba mu essayer koko ding ko essayer du xafé ndax ñam na ko fële ba pare yow bu ko njëkkee de bul dem jënd miel beeg lubrifiant bi rek ba sa jëkkër dem ñami ji ko ci biti wala dem ñami jee ko si sa aawo bi wala sa ñaareel bi wala sa ñetteel bi nga xam ne lépp mujj